donc asalaamaaleykum euh, dama bëgg wax ci euh, liberté de la presse notamment à travers le euh, journaliste Pape Alé nga depuis quelques jours donc def nañ ko mandat de dépôt donc mi ngi nekk ci loxo justice ci loolu ma jaare ci ñu waxtaan un peu ci code de code de Munich ou bien euh, benn charte a boo charte charte Munich que lañ ko euh, adopté pour les journalistes en général mais Europe donc code a euh, dix devoirs mais am cinq droits yoo xam ni dinañ français mais aussi ñu wax <clears throat> ci wolof pour ñu a par rapport ak li Pape Alé Niang d'abord dama bëgg pour képp koo xam ne xamoo nan la télé di liggéeyee wala nan la entreprise de média di liggéeyee parce que gis nañ ñuy def ay ay ay euh, jaxase yu bëree bëri man semaine bi passé plateau yi ma seetaan yëpp amul plateau boo xam ne ni en jël nañ li Pape Alé def ñu teg ko ci table bi ñu xool lan moo ci droit mu ci droit lan la ci war a def ak lu mu ci war def lan lañ ci war a jàngat mais dañoo sëmbaxloo rek ne amul droit def lii amul droit def lële mais dans le fond tex texte li ñu koy toppee amul daanaka benn discussion boo xam ne nii bu bu sori la d'abord entreprise média journaliste il faut ngeen comprendre ne journaliste bokkul ak yenn liggéeykaay. yéen yeneen <clears throat> liggéeykat yi journaliste dafa am ben statut bu spécial lutax mu am statut bu spécial parce que dañ ko wax na moy 4e pouvoir bo xam ne dafa indépendant par rapport aux trois pouvoirs yi nga xam moy exécutif législatif ak judiciaire parce que moom mo lay permettre nga xam ñi la jiite

et lépp loo wax moom droit mu jox ordre c'est pas le cas euh, dama exemple par exemple bu entreprise de presse gis nañ mën nañ fàttaliku bi nga xam ne nii euh, euh, Youssou TFM pour am licence pour mën diviser TFM bu mag mais licence boobu licence dafa nekk loo xam ne ab këyit la rek autorisation la mais autorisation boobu dafa dafa am doole ndax tey man mii maas su ma état joxoon licence ma am fréquence boo xam ne mën na supporter télé fréquence boobu këyit la autorisation la bu ma bu ma état jox mais loolu mën naa ci am ay milliards donc état jox na la këyit boo xam ne mën na nekk ay milliards ndax lan su ma neexee ma téye ko man awma dara mais jour où nga une équipe par exemple FR bu France wala waa CNN bu ñëw Sénégal ñu ne ah 3 de am na licence ñëw waxtaan ak man ma sama licence de man dama mais chaque année da ngeen may 2 milliards 3 milliards jox la licence bi fréquence yëpp supporté leen léegi man dara tabax seen bâtiment ñoo jël seen ñoo tabax seen plateau mais sama fréquence utiliser fréquence ça m'a fait donc ñu gis ne loolu nga xam ne nii état dala koy jox nit ñi xeex pour am ko dafa am condition yoo xam ne nag da ciy lalu mooy licence bi de dafa ànd ak lu ñuy wax cahier de charge doo fa publicité peut-être cigarette doo fa wane affaire góor jigéen doo fa wane affaire euh, yu del ci kaw religion mais tamit doo déformer information bi doo fa wax lu dul dëgg. loolu mooy cahier de charge bu nekkee ne am nga loo xam ne da ngay def général nga am lu ñuy wax ci média bi dafa am lu ñuy wax programme classique boo xam ne mën na am directeur des programmes mais mën nga amaale aussi lu ñuy wax rédaction rédaction ñu fay nekk journaliste yi ñoo fay nekk lan moo tax ñuy séparer programme ak journaliste yi ak rédaction mooy programme man sama ma sama télé mën naa jël sama rak def ko directeur des programmes mën naa jël sama mag def ko directeur des programmes mën naa jël sama jabar def ko directrice des programmes parce que amul condition buy fixé ne directrice des programmes bi war na am tel kii war na liggéey li war na liggéey lële programme nag pour ngeen comprendre que mooy émission way yi fecc yi euh, direct direct direct talk show yi euh, euh, affaire xale yi dessin animé yi série yi donc lui c'est programme net, mais bu une rédaction un journal C'est émission émission politique animée par un journaliste C'est un lépp documentaire journalistique Nous, avons du service programme qui est imposé. di imposer wax mais service programme il da wax le heure bu mais li fa nekk ki nga responsable moom mooy directeur de publication wala directeur de l'information ki fa nekk ki nga xam ne nii moom journaliste la mu seef ay journaliste donc man même su moom moom mooy sama télé mënuma ñëw ne sama frère bi bu nekkul journaliste la moom laay jël moom mu nekk directeur de la rédaction mënuma ko def parce que ki war a nekk directeur de la rédaction kooku journaliste la war a nekk xam nga kon journaliste yooyu protégé nañ leen pour plusieurs raisons après su ma ñëwee ci charte bi dinaa leen woon lan moo tax ñu protégé leen donc lépp li fay am journaliste bobu mom mo nek responsable ba pare ñu teg ko ko ci rédaction bobu dafa wara am lu ñuy wax diversité diversité bi moy rédaction bi warul jóg rek muy songu ben président wala muy songu ben opposition il faut que opinion yi nga xam ñom ñoo nek ci politique idéologique yépp dañ fa war représenter mais dañu ñàkk journaliste bi ba nga xam ne ki mom journal euh, télé bi sax wala ki mom média bi sax war ko mën a ne par force da ngay def lii wala da ngay def lële après naa leen jox ay exemple concret yo xamne ne yuy wane ne loolu télévision yu bëri yo xamne amu fa Papa la damay rekone d'abord ben anecdote moy bokku nañ liggéey 2STV pendant des années muy def euh pilou face di def émission spéciale di def moo jëkk def sam mag def ay émission yu plateau yu bëree bëree bëree bëri man depuis que ma jóg 2S wala depuis que ñu peut-être je si liggéeykaay ak a respect laa Je a si moom ci ni mu joxee cër liggéeyam ma raconte anecdote boo xam recevoir Latif Koulibaly ci émission émission Latif Koulibaly. temps président de la République du Sénégal pour recevoir Latif Coulibaly c'est ben émission comme pile ou face bi mu ko recevoir émission bi fekk boobu Latif dafa contrôle Ablaye Wade finalement émission bi am des problèmes pour nous diffuser parce que Latif la Et mais Pape Alé def na émission bi bu ko diffusé wul quand kenn du démissionner. dara dafay démissionné après démissionné parce que dafa japp mom ne liberté effectivement nekkul ne kii nga moom wala keneen mom moo la war ne lii ngay def yow sa programme journalistique parce que du journaliste te loolu dixième euh, pour rek exemple bi mais après naa la ko listeel dixième obligation devoir ci charte de mairie moo ko wax mu ne ne jamais refuser toute pression et n'accepter des directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction Moi, na nga bañ lépp lu ñu lay teg ci xoxotal waaye tamit bul nangu kenn ku la joxoñ li ngay def bu ki nga xamné ni mom mo nek directeur de la rédaction mais ki mom télé bi wala rakku ki mom télé bi du directeur de la rédaction donc kooku mun la wax ki nga jël wala këla ngay jël wala li ngay wax wala këla la ngay wax si nous appliquer ne serait-ce que la charte bi nga xam ne moom appliqué wu ci charte déontologique chaque minute pour les journalistes donc il a il a le droit de dire que mon contenu journalistique du quel moomu euh, dicté beneen bi tey jàpp nañ ko ndax lan dafa entre guillemets ñu révéler des secrets qui xam nous nii ñu cohésion nationale mais Abdou le Coulibaly depuis Bob, est-ce que vous ngeen ko dégg lu changé Abdoulaye Koulibaly jogé na légui ci opposition wala jogé na sax ci journaliste boo xam indépendant bu def investigation am ne arrangé wul pouvoir bi légui mi ngi si biir pouvoir mais pour man bu nekkoon ne Abdoulaye Koulibaly même légui bu né du journaliste mu nekkee ne nit ko xamné ni par rapport ak principe par rapport ak droiture war na ne serait-ce que mu ñaawlu lii mais du ko ñaawlu parce que fi pouvoir bi toll mooy lépp lu ko arrangé wul bëgg ko dégg donc dafay rangé wu nga nga jàngat si ñaari position entre le ki nga xam bi mu nekké mom ci euh situation bo xam mën na ñak fayam mën na ñak place am mën na ñak payoram taxaw temm ne li bu amul par rapport ak man limay may liggéey jaral na ma ko keneen ki nag moom mi ngi fi muy Abdou Def lépp li nga xam ne nii wanewul lenn luy wane ne jaral na ko moom ne serait-ce que sax mu wax ñaawlu ne serait-ce que sax mu apporter soutien defa ko donc si vous gis pour moi, bu ñu jàngatee loolu mun par rapport ak moom fi far wala day mais vous principe en fait luy luy métier journaliste parce que même boo bi quand même journaliste donc loolu nekk benn affaire beneen bi mooy vous Macky Sall recevoir ay avant que euh, mu nekk président te boobu bu ci gën a siiw rek mooy bi nga xam ne nii 2011 euh, euh, plateau spécial 31 décembre mais moom moo jëloon Macky Sall Abdoulaye Wade bi muy def discours à la RTS mu jël Macky Sall mu nekk si plateau et loolu noonu c'était inédit et du benn du ñaar yoo xam ne ni recevoir na fa Macky Sall si ay plateau man personnellement bi may njëkk a gis Ousmane Sonko maa ngi gis si plateau. Euh, sam na mag bu Pape Alé boobu inspecteur des impôts la woon rek mu ñëw pour défendre Taïbou Ndiaye mais lu ñep lu ñu bari di di di di di di di di créer comme confusion té lolu je vous invite à ngeen dem xol émission bobu pap ale Ousmane Sonko mi nga xam ne inspecteur des impôts la woon dugul gu woon ci politique bi mi défendre Taïbou Ndiaye défendre ko won ndax Taïbou Ndiaye sàcc na wala sàccul wala li mu am li def liñ ko jiñ am na wala amul mais da ko défendre dans le principe que dañ ko war a teg luy yoon waruñu ko sepp ci ay nit teg ko loo xam ne par exemple renversement de la preuve moom teguñu ko mais loolu c'est c'est un principe nekkul ne moom comme ni ñu koy wax ne moom moo nekkoon xam nga porteur de valise et man euh, plateau boobu c'était un samedi samedi mag si la gisee ne bon le gars il a une certaine cohérence par rapport à ce qu'il dit même man si je n'étais pas d'accord sur le fait que Taïbou Ndiaye il devait payer pour ce qu'il a fait mais quand bi ma bi ma seetaanee kooku daf ko

ma ñëw ci lu ñuy wax charte de minute ma liral leen fukki poñ yi nga xam dafa tegu seen kaw muy les devoirs euh, de la charte premièrement mooy respecter la vérité Quelqu'un puisse être les conséquences pour lui-même et ce en raison du droit que le public euh, a de connaître la vérité donc mu ne nga respecter nga fonk dëgg ak lu la ci mën di fekk na yow mooy comme la Pape lu ci mën a fekk mooy dëgg rek ngay wax lu ci di parce que ñi nga xam ne nii askan wi dañoo am euh, dañ leen war wax dëgg dafa war xam bi mu défendre la liberté de l'information du commentaire et de la critique na nga sàmm te saytu te ñag li nga xam ku nek war jot ci information mo jot ci xibar ku nek aussi war na joxe sa xalaat mais ku nek aussi war na ko xagn moy bo dara mais amna ñu a amna ñu jox mu nek lo xamne dafa and ci li nga joxe lo xamne ñu te donc lool non, non, non, liberté la c'est-à-dire ku nek am nga droit yow lool nga def ko ñu bind troisième bi publier seulement les informations dont l'origine est connue ou les accompagner si c'est nécessaire des réserves qui s'imposent. Ne pas supprimer des informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents. Nous, ne la na nga génne xibaar yi nga xam ne fi mu sosoo xam nga ko tamit boo koy génne Nous nga koy Nous ak bu ko que ay ñag yoo xam ne mooy yow li nga xam ne nga ne xamoo xawuma li nga xam ne nii leeragu ne leeragu ma parce que loolu dafa dafa dafa ànd ak li nga war a génne bul ci dindi dara mooy supprimer des informations loo xam ne dafa da information boobu loolu bu ci génnee da day tax ni ñu ko waroon a xame duñ ko xame wala ni ñu ko waroon a jàngatee duñ ko mën a jàngate bul tamit dugg ci texte bi wala document yi nga siy dugal loo xam ne bokk ci mooy bu ko altéré car ñu ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir les informations des photographes et des documents donc bii mën nga ci làqu sax pour jéem a xalab Pape Alé mooy ne pas utiliser de méthode Déloyales, déloyale déloyale moi, lan mooy li nga xam ne du yoon mën nga par exemple ne da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay euh, nëbbatu wala nga jéggi yoon wala nga dóor nit wala nga xoxatal nit pour am information boo xam ne en fait ni nga ko amee dafa nekk méthode boo xam ne c'est déloyal muy photographie wala ay document xam nga wala làqu si kër nit xam nga te foofu waroo fa woon dugg photo fa wala nga dugal caméra surveillance boo xam ne nii wala mooy comme peut-être affaire euh, kër gi peut-être méthode déloyal la pour obtenir information boo xam ne en fait euh, waroo ko woon waroo ko woon am cinq s'obliger à respecter la vie privée des personnes

et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement confidentiellement donc garde le secret professionnel Les filles, dañu jàpp dit, Alé ñu ne ko source on te dit ne pas divulguer la source des informations fi nga est le secret professionnel c'est nga ko Et te bul que kan moo la jox information yi nga am confidentiellement confidentiellement mooy ci bi nga am ci loo xam ne lu parce que source bi moom moom moo la jox euh, information boo xam ne na askan parce que papa li mu joxe information soxal askan parce que enquête boobu nga ne moo ci lëmba dëkk bi ñu complot la taxaw ñu ci ne la mais information boobu noonu soxal askan wi bu ñu complot la juge complot mais information boobu information bu intérêt public donc c'est privé euh, s'interdire le plagiat la calomnie la diffamation les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une information à moi nga dem jël ku de information am nga le ko daal koy defaat même chose calomnie mooy ngay wax loo xam ne lu ñaaw la te ko ci dëgg diffamation aussi même chose là. maanaam da les da nit ki accusation mooy un euh, jiñ nit ci jiñ boo xam ne ni tegoo ko ci lu nit ou bien de recevoir un quelconque avantage à raison de la publication ou de la suppression d'information. Ou wala nit pour nous gagner ab information ou pour nous dindi ab information Lolo, devoir la nga bañ neuf ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire ou de propagandiste n'acceptez aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs donc fi dañuy wax ñi nga xamné ñoy fay pour publicité par exemple nous ne la jamais de jaawale ne de de publicité de jaay de propagande mooy dafa am idée bu mu bëgg jaay mooy APR la bok wala Pastef la bok wala dafa bëgg léegi nit ñi ne euh, Pastef mooy baax man de gisuma Ousmane Sonko mu wala mu ne euh, pasteur mooy parti bu baax bi yeneen parti yu baaxul pasteur mooy lii donc ñu ne kon loolu bu ko doon def loolu propagande la parce que joxewul information dafay inciter nit ñi pour ñu dem mën na inciter nit ñi ji wala mais ne euh, Ousmane Sonko rek moom mooy ku baax ki amul keneen ku baax wala mu ne Macky rek mooy baax amul keneen ku en passant euh, Babacar John, gis naa ko wax plateau di di di fustiger li Pape Alé def ne loolu dafa jéggi journaliste mais bu ba léegi joxawul joxawul en fait argument beneen bi tamit mooy mu ne moom nangu na ne juumoon na ci euh, local yi parce que danoon def ci journalam bi ñuy wax lii chaque jour mu joxe sondage de sondage mooy wane ne Abdoulaye Diouf moom mooy gañ mairie de te loolu amul chaque jour mu génn ab une boo xam ne dafay dafay dafay kañ Abdoulaye Diouf Sarr léegi moom mu ne man nangu naa seera man juumoon naa ci affaire bi moon def ci Abdoulaye Diouf Sarr mais li boo juumee juumoo da nga nangu ne dañ la doon da nga nangu doon def lu ñuy wax propagande donc yow bokkoo ak ki nga xam ne mooy Pape Alé boo xam ne nii mënoo mënoo ko gis mu ne dafa dafay jël ne Ousmane Sonko moom moom lay moom lay teewal wala moom la bëgg ñëpp bëgg ko loolu man de gisuma ko koo gis aussi mën na ma ko wan dixième bi nag waxoon na ne ko sànq mooy refuser toute pression et accepter des directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction donc moy ki nga xam ne mom production wala ki nga xam ne ki nga xam mom moom télévision wala média bi kooku amul ba jox la bép euh ndigal ci nan ngay traiter information bi légui nak ñu dem ci juroom yi nga xam ni journaliste mom moko mom ko war ko xagn moy ay yelleefam ay droit les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en aucun cas être opposé aux journalistes que par exception en vertu des motifs clairement exprimés. Mon journaliste bi dafay revendiquer dafay critiquer. ah dafay jël Moi, le libre accès à toutes les sources d'informations informations, information nekk xibaar nekk war dem mu mu mën mu mën ko jëli te kenn du dox digganteem ak information bi mu mën a enquête c'est-à-dire lëj mbëj fexe def ay ay pexem ba mën a dugg fu nekk ci ci ci xibaar bu nekk nag boo xam ne nii dafay conditionner la vie privée xibaar boobu noonu am na jeexital suñu dundin ñun en tant que askan mooy li am ci Pape Alé li mu doon def ci enquête boo nga xam mooy qui euh, wu au euh, gendarmerie amna na jafe askan bi parce que jour bobu non <laughs> mais ken liggéeyul ñu waron dem euh, tribunal mais ken amul ce qui fait fépp dem mais ay ay policiers gendarme nga fi gis donc loolu non amna na jeexital ñu suñu askan bu nekkoon ne ci tribunal la dossiers yi am tous les jours mais loolu amul jeexital suñu si askan mais bi ni dossier bi dafa am jeexital askan askan donc les secrets des affaires publiques ou privées ne peut être en aucun cas opposé hmm, te li, mooy li ñuy ay affaire publique la bon amna secret fi wala non lolou dañ ne la journaliste ci wax amul wala exceptionnellement en vertu de motifs clairement exprimés maintenant motif, yi ñi nga xam yow da ko ba mu que information bi té qui est après na ci ci fin luy wone en fait lool jox jox comme information amul benn par exemple cohésion nationale le journaliste bon deuxième droit a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise telle qu'elle est déterminée par écrit dans son contrat d'engagement de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise telle qu'elle est déterminée par écrit dans son contrat d'engagement de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale. Donc, fini, peut-être c'est plus euh, dans le type de contrat, parce que l'entreprise, bi bi nga nek dafa liggéey mooy média bi nga nek si liggéey bu nekkee ne am amul loo xam ne bind nañ ko mu leer nañ ñu ne lii kat da nga war de euh, nangul ordre mën nga bañ mooy refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise mën nekk ligne éditoriale donc boo ko joxee directive loolu mën na ko bañ ñetteel bi le journaliste ne peut être contraire à accomplir un acte professionnel ou exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou à sa conscience donc fii dafay nekk loo xam ne ni euh, mën nañ ci wax li amoon devant Dié Mati Fall mu nekkoon soleil boo xam ne nii mosoon na mm, am problème ak euh, Yaxam mbay par rapport ak moom euh, PS nekkoon na fa di mil def naa par rapport ñu bokk ko yóbbu ci ay traitement yoo xam ne en fait bon moom gisul ne li mu gëm idéologiquement loolu mënu ko def donc <clears throat> euh, loolu amoon na fi mooy journaliste bi mënoo ko imposer digal ko par la force mu génn opinion boo xam ne ni moom gëmu ko c'est-à-dire man gëmu ne par exemple euh, telle personne mën na def lii ñu ne ko directeur relation daal donc non non il faut yow nga dem yaay défendre ah, en fait loolu c'est-à-dire yow yow yow dañ la fa teg pour nga défendre que ne que lii te pourtant yow fi nga sa sa biir xol jàpp nga ne lii nii en fait amul donc kenn mënul la ko imposer. Euh, à sa euh, conviction euh, ou sa conscience Si yow xam nga en fait mais imposé le droit l'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toutes les décisions importantes de nature à affecter la vie des de l'entreprise elle doit être au moins consultée avant décision définitive sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction embauchement licenciement mutation et promotion de journalistes waaw fii dafa am un cas pratique bu ma le di jox euh, c'est public hein. TFM la l'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l'entreprise donc on a une équipe euh, rédactionnelle bi dañoo am indépendance donc entreprise bu bu ñëwee tey di licencier un journaliste wala muy modifier euh, de l'action bi jël kenn def ko directeur de la rédaction <clears throat> wala muy embauché kenn koo xam ne benn journaliste boo xam ne buy ñëw peut-être di intégrer rédaction bi dina am peut-être lu muy changé ci li ligne rédactionnelle bi wala muy mité benn journaliste war na informer directeur de la rédaction bi war ak journaliste yi comme ça ñoom ñu loolu au moins ñu informer leen pour ñu mën a xam pour que loolu ñu xool ndax en fait dina mën a laal ñoom ni ñuy traité information bi ndax loolu baax na wala baaxul quoi. Euh, gis soir des fonds jour bi ñu koy lancé euh, Bouba Ndour moom moo nekkoon ci plateau bi moom mu annoncé ne ñoom ñoo jëli Aram Touré Aram Touré di jóge na wax comme quoi qualité yi nga xam ne nii donc lii la donc sa réaction bi gis ñu ko euh, ci ci ci TFM wala ci même RFM donc bon mu ko par rapport ak peut-être journaliste bu nekkoon. Mais <clears throat> en tant que directeur de programme, ce n'était pas à lui de présenter un journaliste. C'est une faute. Qui vous présenter moi, qui le directeur de la rédaction. Parce que, soir défaut, le journaliste m'a présenté pour des sujets d'information. Donc, nekul ben programme bo programme bo xamné da programme TV classique le programme de la rédaction là

ce ce ce directive a par rapport à information journalistique. journaliste en pour en fait statut qui que spécialement journaliste parce que cinquième en considérant de sa fonction et de ses responsabilités le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale ainsi qu'une rémunération correspondant au rôle social qui est le sain et suffisante pour garantir son indépendance économique fii dafa am solo parce que nous tax ñu bëree bëree bëree bëri journaliste ñu en considérant de sa fonction et de ses responsabilités moi, journaliste bi fi ko teg responsabilités, fonction yi muy occupé responsabilité yi le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives convention collective moom boo ñëwee ci benn corporation rek moom mooy li lay que boo duggee fenn am nga droit li par bo boo joueur nga dem mondial ba lepp lu ñuy joxe comme prime am nga ci droit maintenant au delà nag de convention collective bi limuy muy jox journaliste bi mais aussi à un contrat personnel assurance en sécurité matérielle mais dafa am contrat boo ne c'est personnel par rapport euh sa moral ak sa ak ak matériel ak moral moy da nga wara indépendant da nga wara nek ci condition yu baax une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien est suffisante pour garantir son indépendance économique rémunération correspondante mooy dañ la nous faire. fay fay boo que ne dina yellool yow socialement rôle bi ngay jouer ci rédaction bi dans la société pour que nous puissions le garantir nous puissions le pour yow kenn ne aucun qui influencer kenn du son indépendance économique parce que si vous êtes la journaliste ñu xëy suba teg la ngay présenter journal mais yow le rôle social du journaliste mooy chaque jour booy présenter journal war nga am yëre bu bees ba nga xam ne bi nga solal peut-être dem doo sol tey léegi ñëpp ñu ngi lay gis mooy sa mbokk yi nekk ba cliquero xam ne yow da nga génn télé soo génnee dañ lay xàmmee mais kooku rôle social bi ñu jouer maintenant dans la société mais dafa war a am oto pour moom mën mën a am privé parce que mënoo présenter journal télévisé wala journal xibaar wolof après nga génn jël jël jël jël jël euh, Jakarta wala nga jël euh, car rapide parce que loolu boo ko defee tey mën nga joxe information boo xam ne nii neexul peut-être kenn mais mu xaar la ci bunt bi nga dugg ci car rapide di dox di dox pour ñibbi mu mu la attaqué la mooy dafa war a tolloo ak yow li ngay joué ci rédaction bi mais dafa war a tolloo aussi ak socialement li ngay représenté parce que mënoo jël directeur de la rédaction joxoo ko condition yoo xam ne moom mën a am kër mën na ay doom si école yoo xam yu baax la mën am lekk boo xam ne du am problème dépense bu dina a du du du ma lii kii may parce que képp ku la indépendance financière mais da exposé pour ñu lay ger pour ñu lay wax ne ah, li ma ngay et loolu nag moom moo réaction yépp ci télé yi réaction yu bëree bëri bëri bëri li tax journaliste yi mënuñu indépendant mooy ñoom ñëpp lu si bëri li ñu leen di fay méngawul ak train de vie bi ñu am mais bu nekkee lañ lay fay méngawul ak train de vie bi nga am léegi léegi train de vie bi nga yore fan nga ko jëlee am na journaliste yoo xam ne tey bu ñu leen waxoon sax duñ leen fay nangu nañ parce que noonu ñuy génnee di diviser ay information xam dafay neex nit di nit ñu mën leen influencer pour ñuy diviser loolu mais loolu dañuy am accès pour pour pour pour jox ko donc journaliste boo xam dafa bëgg nag moom indépendant li muy wax nekk dëgg mu xoola aqulaay taalaam da nga ko war a garantir indépendance économique donc loolu lépp boo ko gisee mooy tax yenn journal yenn journal léegi comme le média wala euh, part ñuy def ne ñoom dañuy def journaux journaux wala média yoo xam ne nii nit ñi koy euh, euh, participer amul kenn ku ko moom mooy nit ñi ñooy ñooy abonné nit ñi ñooy fay journaliste yi nit ñi ñooy assurer indépendance financière journaliste yi donc ñooñu mën nañu am indépendance wax lu leen ne mais mais fii bu nekkee ne yow sa journaux publicité yi fay dugg sa journaux euh, une ñi ngay jaay sa journaux lépp li ngay def chaque fois dañuy mën nañ njort ne ñi kat dañ la fay mais kooku mënoo waxal dëgg da ngay wax loo xam ne moo la moo la moo la intéressé mooy tax yow de temps en temps information la génn du lu arrangé sax parce que boo ko defee par exemple rek di nga perdre ay ay ay ay publicitaire te loolu moom mooy ñëwaat fële ni la waroo waroo nekk publicitaire parce que waroo confondre journaliste et publicitaire léegi télévision yu bëri ce sont des régies publicitaires lu ñuy def mooy publicitaire la ñuy wut te publicité boobu wut tey moo ñëw benn la poste jox la mais la poste xoolal télévision yu si bëri jamono yele ci ginnaaw day convention yi ñoon signé convention yooyu même bu nekké ne kenn xamul sax lu ñu lu ñu signé ñom entre entre ñoom mais de xool leen rek publicité yi poste doon jàllale ak propagande yi poste doon jàllale ci télévision yi ni mu bëree woon tey jii ñu né poste dafa daanu bu mënul fay ay salaire ba problème ñu nga xam ne sax waa EPS bay fayeku sax mais loolu c'est que même problème poste yi bu amoon